te ci la yëkkatee kàddu yi yi jëm ci yi jëm ci sëriñ bay Guèye mii yi jëm ci sëriñ Mbaye Guèye mii ak ñi mu àndal ak ñi mu àndal ñëpp sëriñ Mbaye sëriñ bi nee na sëriñ Mbaye sëriñ bi nee na mu ngi lay nuy bu baax mi lay nuyu bu baax a baax di la sant bu baax di la sant bu baax a baax te di la gërëm te di la gërëm jataay bi nag dafa gàtt mu ne jataay bi nag dafa gàtt ndax fi waxtu wi toll ndax fi waxtu wi toll moo tax dañ koy koy tënk rek waye serigne bi neena waye serigne bi neena mi ngi lay sante bu baax. mi ngi lay sante bu baax. di la gërëm. di la gërëm. ndax mom ndax mom fi mu tok fi mu tok l'islam jëpp la fi nekkal. l'islam jëpp la fi nekkal. togal fi jëm serigne Touba. mu ne togal fi jëm serigne Touba. ku yaakar serigne Touba ku ne. ku yaakar serigne Touba ku ne. sa yaakar nga joyal ko ci mom sa yaakar nga joyal ko ci jëm ji. yow nak mu ne yow nak yàlla dalaa defal tawfiq mu ne suñu borom dalaa defal tawfiq tawfiq ji moy tawfiq ji moy sëñ Abdou Lahad danaa wax ne. mu ne sëriñ Abdou Lahad danaan nee na. sëriñ Touba nee na. yàlla bu la naree dimbali. yàlla bu la naree dimbali. da lay yee ci boppam. daf la yee ci boppam. yow nag suñ suñ borom da laa xiirtal ci. mu ne yow nag suñ borom daf laa xiirtal ci. yee la ci mbirum sëriñ bi. yee la ci mbirum sëriñ Touba. mbirum Cheikh Mouhamadou Mountakha. mbirum Cheikh Mouhamadou Mountakha. nga teel a yeewu ci mbiram. nga teel a yeewu ci mbiram lool. njëkk muy toog jataayu sëriñ. njëkk nga def ko kilifa. nga def ko kilifa. def ko sëriñ. def ko sëriñ. def ko waajur. def ko waajur. def ko wéeruwaay. def ko wéeruwaay. kon lu muy xam ci yow rek. kon lu muy xam ci yow rek. jekkul ba nekk ci ba nekk ci jotaay bi. mu ne jekkul ba nekk ci jotaay bi soog koo xam. door ko xam door koo xam. kon loolu. mu ne kon loolu. mooy sa digg moom. mooy sa digg ak sëriñ bi. ndax keroog ba ngay ubbi si jumaa ji. mu ne ndax keroog ba muy ubbi si jumaa ji. itteeloon na ko lool itteeloon na ko lool. mu ko lool mu ñor ko lool. képp kum jàpp ne rek mu ne képp kum jàpp ne rek war na caa mën a taxaw war na caa mën a taxaw mu digal la ko mu digal la ko kon loolu mu ne kon loolu doyoon na sëkk ci yow tawféex doyoon na sëkk ci aw tawféex ci yow ci yow bu yàlla defee mu ne bu yàlla defee suñu borom teg ko ci jataay bi mu ne suñu borom teg ko ci jataay bi mu toog fi jëmmi sëriñ Touba. mu toog fi jëmmi sëriñ Touba. yàlla defal la tawféex yàlla defal la tawféex ndax siñ Touba. mu ne ndax sëriñ Touba. lépp lu mu bëgg rek lépp lu bëgg rek yàlla suñu borom daf koy defal ni mu ko bëggee yàlla suñu borom daf koy defal ni ko bëggee kon nag ki am tawféex mu ne kon nag ki am tawféex mooy ki xelam dem ci mooy ki xelam dem ci bëgg a liggéey sëriñ Tuubaa bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi moom ndax sëriñ bi moom dafa am yërmande dafa am yërmande bëggutu teg kenn dara bëggutu teg kenn dara mooy mooy aw doxinam mooy aw doxinam moom day wax ne yitte day wax ne yitte ak pësteef bi rek ak pësteef ko taxawaay doy ko taxawaay waaye amul lu muy séntu ci nit. waaye amul lu muy séntu ci nit. ndax noonu la ko yàlla melal. ndax noonu ne noonee la ko yàlla melal. wo woyofal gi boppam. woyofal gi boppam. te yàlla woyofalu ko. te yàlla woyofalu ko noonu. moo tax bëggut a teg kenn dara. moo tax bëggut a teg kenn dara. waaye yow nag da nga am tawféex. mu ne waaye yow sëñ sëñ mbay mbay da nga am tawféex. ndax ci yees yees ba rek. ndax ci yees yees ba rek. nga teel a ñëw ci moom. nga teel a ñëw ci moom. wax ko ne ko dama laa bëgg a liggéeyal. wax ko ne dama laa bëgg a liggéeyal. xalaat na it. xalaat na it. kër sëñ Touba gee ca Colobane. kër sëñ Touba gee ca Colobane. war nga koo mën a defaral. war nga koo mën a defaral. ba ba mel ni mu ko bëggee. ba mel ni mu ko bëggee. nga laaj ko ci ndigal. mu ne nga laaj ko ci ndigal. mu jox la ci ndigal. mu jox la ci ndigal. mu ñor ko lool nag. mu ñor ko lool. kon nag ndigal li ba mu amee rek ne kon nag ndigal li ba mu amee rek ci la sa aajo faju ci la sa aajo faju bu jëf ji amutoon sax bu jëf la sa aajo faju ci la sa aajo faju kon nag sëñ bi mi ngi lay sant kon sëriñ bi mi ngi lay sant di la gërëm di la gërëm ndax eh, kër ga ku fa dem mu ne ndax kër ga ku fa dem xam ne jëfe nga ko yéene xam ne jëfe nga ko yéene jëfe nga ko pasteef jëfe nga ko pasteef ngi lay sant mi ngi di la ñaanal di la ñaanal ci barkeb sëriñ Touba ci barkeb li sëriñ Touba daale ci ku ko liggéeyal li sëriñ Touba daale ci ku ko liggéeyal yàlla nga dajeeg moom yàlla nga dajeeg moom te moom ku seral xolom rek te moom ku seral xolom rek aaj aaj sa aajo faju sa aajo faju kon nag kon nag sant na la bu baax sant na la bu baax a baax mi mi ngi gërëm mi ngi gërëm di gërëm ñi ñi nga àndal di gërëm ñi nga àndal di say bokk di say mbokk ak say mbokki xarit ak say mbokki xarit ak say sa mbokki taalibe ak say mbokki taalibe ak sa wëllëre yi bàyyi bàyyi ko ak sa wëllëre yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ba Thiès bàyyi ko ci këri diine yi bàyyi ko ci këri diine yi ñu wéttali la ci jataay bi ngir wéttali la ci jataay bi xam naa nag jataay bi dafa xat mu ne xam na nag bi dafa xat ndax Serigne Touba dafa waxoon ne ndax Serigne Touba dafa waxoon ne noddu noddu ñaari baat rek la ñaari baat rek la mooy allahu akbar mooy allahu akbar ak laa ilaha illallah ak laa ilaha illallah mu ne allahu akbar mu ne allahu akbar mooy lum la fekk la lu ne mooy lum la fekk lu ne لوكو غنا وار نيونا لوكو غنا وار نيونا مو لا اله الا الله مو لا اله الا الله مو فوفي مان دي جيم مو نه فوفي مان دي جيم تدو تدو مان يالا تدو مان يالا مو نه فوفو دو في جيري دار مو نه فوفو دو في جيري دار كون نا جتاي كون نا جتاي بي نيو غاتالي كو نونو نيو غاتالي كو نونو نده جيف نده جيف من من عندك واخ من عندك واخ تي لي غير في جيف لا مو نه تو لي غا ديف جيف لا كون نا دوني سك كون دوني سك السلام عليكم ورحمه الله.